na Mame Matar Gueye vice président ONG Jamra euh, ma lay euh, nuyu di la ziar monsieur Gueye. ñu ngi lay fay nuyoo soxna Ngoné. Mm-hmm. ñoo seetaan seetaanandoo léegi procureur ci loolee nga xamante ni kon wax na ko euh, yoon du yox yoxi du dellu ginnaaw kon xel yi mën naa dal ndax xel dal na. waaw xam nga yàlla dafa dogal ñun doomu aadama xam suñu matadi moo tax yàlla sàkkuñu rek abandonné ñu sur terre daf ñu booleeg ay awliyaawu ak ay anbiyaa yi jox leen ay jàngale jox leen ay téere yu tedd diine boo dem nag muy injiin bi yonent yàlla Insa tawret bi yonent yàlla Musa ak karim fësal nañ ci ay yooni yoon fonk bi yàlla fonk bakkenu doomu adama ba looloo waral ci suñu diine ñun parce que nous sommes 95 pour cent de musulmans donc majoritaire yàlla ñetti xeetu faat doomu aadama la tëral te bu ci nekk ak àtteem bu jëkk bi mooy xatlul xam di mooy rey bu ànd ak teyeef te tubaab di ko wax homicide volontaire avec préméditation ñaareel ba di euh, rey bu niroog TF waaye du TF ñu di ko wax coup et blessure volontaire euh, ayant entraîné la mort sans intention de la donner mm-hmm. bi mujjee nag mooy homicide involontaire maanaam rey yu njuumte ñaar yu mujj yi nag suñu borom ci mbaaxam ak yërmandeem atte yi mu ci jox nee na ñooñu dañ leen war a teg diya maanaam tubaab di ko wax le prix du sang ñu war ko ndàmpe njabootu ki loru ba noppi itam yàlla teg na ci seen kaw lu ñuy wax kafaara donc war nañu woor ñaari weer yu toftaloo ngir bàkkaaru rey boobu te teyuñu ko mën leen teggeeku mais ci catégorie bu njëkk bi nag suñu borom dafa wane fermeté maanaam rey bu ànd ak teyef nee na kooku dañ ko war a teg la loi du talion maanaam la mu def ñu teg ko ko te dànkaafu na sax njabootu ki loru nee na même boo leen ko jéggalee ndax l'islam prévoir na loolu mhm. ndax wax naa sànq prix du nee na du tere sama mer du tàggoog moom mukk ba ñu ne ko waaw kon kooku nu mu mën a def ba mucc mu ne nu mën def de mucc mooy ngeen teg ko la loi du talion bu ko defee balaa moo génn àdduna bàkkaar yu mën ko teggee ko kon loolu ma lay expliqué noonu yëpp eh, eh, dafay firndaal ni suñu borom lu jiitu même l'islam di ñëw am na yu mu bëggoon a dans la société humaine ndax bari woon na lu jiitu diine di ñëw nga dem ci benn tribu bi ñu faat fa nit beneen tribu bi fàq ñëw def fayuntoo bu metti mu jur de dizaines de morts yàlla nag ci mbaaxam ak yërmandeem daal di wàcce la loi du talion pour que sanction bi ñu yemale ko cote ci ki def jëye ji. Ah, ah, moo tax ah, suñu borom mhm. wax ci wax ci suratul Baqara ne boo leen bëggee am société bu équilibré société bu am jàmm. boo xam ne du am fayuntoo na ngeen appliquer la loi di talion. kon jàpp nga ni Mame Matar ak fii yëf yi toll ci wàllu insécurité wàllu xeetu euh, faat bakkan yi nit ñi euh, jël jot na kon ca loolee suñu borom waxoon ñu delluwaat ci ngir indi ak dal. ñu dellu ci parce que lii mag ñu baax ñi di wax rek boo demee di di di xaabaabal ba yàgg xamatoo foo jëm nga dellu fa nga jóge woon kon il faut ñu dellu ci li suñu borom wax alors loola waral nag euh, ñun Jamra bind nañu bataaxal président de pour am ñaari xalaat. yu ñu bëgg partager ak moom mooy ni muy defee conseil présidentiel sur l'agriculture sur les investissements baax na mais fii dëkk bi toll ci insécurité nga xam ne xel yi dalatul ndax bu njëkk ba dañu laan fekk ci mbedd mi rek foqati sa porte-monnaie bàyyi la ak sa bakken léegi dañuy fab sa alal rey la yamatuñu di la rey ci mbedd mais dañ lay fekk sa biir kër duma la laa ne la lu léegi dañ lay fekk sa biir kër comme li dal ndaw si ndeysaan Fatoumata yàlla na ko yàlla xare àjjana fekk ci biir këram rey ko comme que egg na foofu jot na président def conseil euh, présidentiel spécial ci loolu toftal ci nag li yenn réew yi def barka démb états uni mu di organiser référendum laaj sénégal yi seen xalaat te li sénégalais yi wax na ci ànd ak ñoom te gàcce amu ci dara amu ci ndax réew buy dox di nga dox ba yàgg fakastal wala nga dox ba yàgg gis ne du noonu nga daal di dellu ginnaaw moo dal euh, bërk démb ñetti état États-Unis ndax at yi passé organisation des droits de l'homme yi dañu defoon pression ci ñoom ba ñu abolir la peine de mort waaye coow li bari criminalité bi yokk jóg nañu ñoom def référendum boo xam ne dañ ko couplé woon ak présidentielle bii passé ba rétablir nañ la peine de mort mu di Californie Oklahoma ak Nebraska Nebraska moom am nañ score 61 pour cent ba peine de mort dellu si waat na. dinañ ci dellu si waat euh, Mamatar ndax euh, am na ñeneen ñoo xamante ni jox nañ ci seen xalaat abbé Simon Diouf moom curé la bu paroisse Notre-Dame des Anges bu Wakam jàpp na ni moom it suñ boroom fonk na fonk goo xamante ni bakkanu doomu aadama ba euh, moom kese kon la moo am sañ-sañu jël ko saa su ko soobee waaye du mindeef moo xamante ni war ngaa mën a taxaw kon faat sa morom ba tax na jàpp na ni wa jëf yi wax nañu ko. xoolaat euh, ñu teewlu kon kaddu yam ci yëkkati ci micro Alassane Ba. koy ñaawloo ba fu mu mun a yem di masaw njabootu ki ñu rey li ma ci gën a metti mooy dafa am waxtu boo xam ne jullitu murid yëpp ñu ngi woon Touba di ñaan yàlla fekkee ñun catholique yi waa de Dakar. ñu dem Popenguine ñaan yàlla fal ay labbe ñaan yàlla mu musal ñu ci li bon ci atum yërmande biile lii ñëw tegu si dañ ko mun a ñaawlu rek lii jëm ti peine mor nag ah ñu ko war a dogal dinañ ko dogal waaye da leen woor na ma bakken kenn amul sañ-sañ dindi ko nit moomeelu yàlla la bakkan yàlla moo ko moom képp ku def ñaawte rey nit def nga bakkaar bu rey mais est-ce que ni nga def bakkaar moo tax ñu war laa rey déedéet yàlla borom yërmande la te ñun bu ñu doxalee yërmande defe naa ñaawtee fi wax fi dootuñu am mukk ma nga kon na mu ca xalaatee askan wii te am nañu ci xalaat bu ñenn ñu jàppee ni eh, ku faat ci nanam yi dañu la wax a faat am nañu jàpp ni du loole kon moom mooy régler eh, problème bi eh, xëy na ñooñu di jëf yooyee xeetu jëf mën nañu leen a jël nëbb leen jant bi seen giru ko dund bu ñu génnul xëy na dootuñu am pexe ci façon yooyee am na kon noo xamante ni askan wi tey jii ku ca ne jàngat nga ca la ñu war a def njeex musal askan wi ñu teewlu seen i kàddu ci micro Alassane Baba tey naka la nit mënee dem bay rendi euh, beneen nit euh, loolu lu ñaawa ñaaw la euh, da ngay dal di xalaat ne comme kooku rendi na nit rey na nit dañu ko war a rey yaakaaruma ne boo bu ñu ko reyee dina wàññi dina wàññi mettit bi ndax ki dem euh, dem na ba pare mais kooku dañu ko war a sanctionné sanctionné bu dëgër a dëgër hmm? euh, à perpétuité amul ay baale bu defee quinze ans vingt non non non. nit ki bu reyee nit ki ñu jël nit ki yóbbu ko état amitié ñëpp ñëw état bi ñu rey ko bu ëllëgee ñiy def ñiy rey ñu doon bàyyi xel si ñuy def mais tant que ñu ngi bàyyi ñuy rey ñu naan waaw ñu daan ko yóbbu kaso parce que dix ans bàyyiwaat ko ñu dañu ko ne rey. parce que tamit boo xoolee nu ñuy rayee léegi dafa yomb trop ray bi dafa bëri ku ray ku jug rek ray ku jug rek ray par exemple bu ñu jug ku jug rek bu ñu rayoon kiir benn yoon ñaari yoon foog naa kenn dootul rey. waaw solution la en quelque sorte. man pour man état bi bu jëlee solution boobu solution boobu du dem parce que tout simplement nit mun na mun mun nga rey nit et doo ko tey donc man solution bi mooy. ñu jéem xool jël ñooñu ñoo xam ne dañoo nekk ci somage dañoo nekk ci jafe-jafe dañoo nekk ci problème jéem a wut solution jéem a wut voilà wut leen liggéey. et aussi Sénégal eh, ñaari kii ñaari religion ñoo fi nekk am na islam am na chrétien donc pen de mort vraiment peine de boobu su fekkente ne euh, état bi loolu la bëgg jël dina indi problème yu yu bari bari fii ni ci kii moom Samba Sow moomee nag fàtt problème am 300000 francs la woon moo waroon a takk jabar euh, kon ci njeextal euh, weer wi loole bokk na ci la ñu mën a jàpp euh, gannaaw kon jokkoom jàkkaarloom ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di l'enquêteur yi Saleh saw di ci dellu si ci yenn ponk yi. Samba Sow dinañ koy yóbbu ci procureur talaata gii bu fekkente ni téye bi ñu ko téye police yokkuñu ko ndaxte altine gi ci ngoon la war a jeex li ñuy woowee reconstruction des faits di maanaam dellusiwaat ci jéye ji ni mu demee yëpp du yàgg dara dinañ ko amal fileeg ay waxtu yu néew lañ ñu xamal loolu alkaati moo ñu ko xamal enquête bi kon mu ngay wéy gars ñu ngi koy gën a baral jéego yi lu tax mu def lu nu mel gars yi xam nañ ko mobile bi wàllum koppar la sàcc la doon jéem a def la ñu xamal mbir mu cool jéye juddoo ca ngànnaay bi nga xamante ni moo doon jëfandikoo di benn paaka sax ñi nga xamante ni ñooy alkaati yi teg nañ ci yoxoo moom mi nga xamante ni nee na moo faataate biir néegam muy dajji armoire ya foofu di fa jëli xaalis Samba Sow fanweeri at la amoon ki mu doon dawalal faat xaalis bi nga xamante ni dañ koo lebaloon soxna yi soxna APR yi nekkee diwaanu Pikine te ñu tàmbali woon di ko fay koppar yooyu la bëggoon a jël te moonte koppar yi moom chauffeur bi ak ki nga xamante ni mooy jàppale soxna si ñoom ñoo doon dem ci kër yi di ko encaisser di ko dajaleel seenub seef ki nga xamante ni nag mooy Samba Sow moom lu mu soxla woon mooy mooy gu njëkk yi nee ñu lañ ko laajoon cent mille francs CFA jeexitalu weer wii di novembre dafa waroon denc soxna looloo waral coow lii lépp looloo waral ba Fatoumata Matar Ndiaye am juróom-benn fukki at ak ñett ñu fekk ko ci biir néegam mu daal di faatu ñu daal di koy rendi samedi ci suba lañ ko rendi moom soxna si da doon sax muuru borom këram bu mu ngook euh, kon euh, leeral yi nga xamante ni mujj na ko ci ndi moom Salif Sow Mame Matar euh, gis nga ko mobile bi procureur wax na ko wàllu koppar ndem xuusu ci indi nañ ay coowal waru garag yu ni mel mais ci pen de mort bi askan wi dégg nga gis-gis yi nañu ca wuute bari na tamit ñoo xamante ni jàpp ñu ni du mooy régler problème bi parce que ci réew yi nga junj sax ñu koy appliqué terewut am na ba tey ji ñoo xamante ni ña nga fay wéy di faati bakkan waaw xam nga yàlla dafa dogal moom moo ñu bind ñu gën a xam li gën ci ñun te moom ci boppam bi nga xam ne ci suratul anbiya bi muy jox lettre de mission ngën ji mbindeef di ko yónni ci ñun daf ko wax ne wa ma ka ila rahmatan lil alamin yu wàcceewu ma la ci suuf lu dul fësal sama yërmande ci mbindeef yi kon kooku kenn mënula wujjeeg moom ci bari yërmande moom moo wax ci suratul baqara ne amoon na fi jamono faat bu amee mbokki ñu faat dañu daan dem muy juri fayuntoo tubaab di ko wax des représailles démesurées yàlla nee na ni may corriger loolu mooy ngeen indi sanction boo xam ne dañ koy yemale kot ci bopp ki def jëye ji mooy la loi du talion yàlla ku bari yërmande la ku xam nit ñi la moom moo organiser société bi noonu bu ko defee nag euh, bu ñu sàgganee loolu mais xam nga ñenn ñi dañuy indi argument que ne xëy na fii euh, du euh, république islamique euh, wala kon réew moo xamante ni charia la ñu fiy doxal Sénégal na convention yu bari yoo xamante ne xaatim na ko ci wàllu droit international ci wàllu droit de l'homme ba tax na xëy na tey ji bu ñu teg woon ci yoon woowee dañ koy daal di joxoñ ci àdduna bi ci ci jàppee ko xeetu recul. ah wax nañu ne Sénégal dem na xaatim benn convention pour ñu daganal borom ñaari tur yi ñu di ko la convention de Genève fu mu mujj yi dañ ko rejeté fermement. waxuñu ne que am na fi ay organisation féminine yuy dox yi jéego pour que ñu daganal yàq biir avortement fu mu mujj Sénégalais yi dañ ko rejeté bien que duñu état islamique nous sommes 95 pour cent de croyants ak suñu mbokku chrétiens yi ñuy 98 ba tax na donte le du république islamique waaye suñuy diine ñu ngi koy dund te du ay tubaab yu toog ca biti ñoo ñuy wax naan nii ngeen war a doxalee seen àdduna et cetera alors ba tax na suñu dellu see ci li yàlla wax yàlla nee na jubluwuma ci soxore soxore kenn waaye dama si jublu pour ngeen am société bu équilibré moom lox ci suratul euh, euh, Baqara alors bi ñu amee indépendance nag la loi sur la peine de mort mu ngi nekkoon d'actualité président Senghor ñaar yoon la ko appliqué benn bi mooy bañ ko bëggee attent attentat moom ci boppam ñaareel ba mooy ba ñu faatee ba kenn le député Demba Diop te ñu tuddee ko tey stade bi ñaar yooyu la ko appliqué mais bi Abdou Diouf ñëwee de 81 à 2000 toog na fi 19 ans mais dindiwu ko daf ko bàyyi muy plané comme une menace si bopp defkatu ñawte fi ba boo comparee période bi ko ab Abdou Diouf bàyyee fii te dindiwu ko ak période bi ko Ablaye Wade dinde mais criminalité bi dafa monter en loo tax nag ñun ñu ñaan Macky Sall ne ko gàcce amu ci parce que américains yi ñun gënuñu leen. démocrate mais même bi ko Abdou Diouf appliqué wul tam na fi xeeti euh, faat yoo xamante ne ñëpp bokk nañu ñaawlu ko. te taxul woon ñu jëfee ko. mais eggewul eggul woon fi mu egg tey parce que xam nga euh, bu njëkk ba comme ni ma ko waxee sànq dañu la daan agressé si mbedd mi këf sa porte-monnaie nga daal di mucc léegi dañuy jël sa alal rey la yamatuñ ci loolu dañuy fekk nit ñi seen biir kër xoolal faa Fatoumata nitu jàmm ku am njariñ ci société bi di dimbali ay néew ji doole li tax mu metti ñu ñun suñu kóllëre de très longue date la depuis 85 mook imaam Massamba Diop ñoo àndandoon nekk ay jàngalekat imaam Massamba nekk professeur mathématique fii ci Ndar seen classe yi dend kóllëre googu mosul dañ fu Jamra amee conférence religieuse mu nga teew di ndaw su baax ñu fekk ko ca biir këram lan moo gën a ëpp sécurité nga toog sa biir kër léegi looloo xew léegi du ñu xaar nga génn ci mbedd mi sa biir kër lañ la fekk euh, def la lañ lay def. waaw loolu est-ce que jotul état bi jël ci mesure parce que nit ki bu dee da nga ne. diw defoon na fi li dara fekku ko ci mais loolu dana mën a encourager beneen saay-saay boo xam ne du jéem a bëreeg bakkanam pour bu ko seytaane bëggee xiit ci musiba mu bañ ko def. Euh, fii ak ñu koy appliqué wala ñu bañ ko appliqué ndax ñenn ñi jàpp nañ ne xëy na war nañ caa mën a def euh, référendum xëy na askan wi wax ci euh, xalaatam danañu tegu ci yoon woowee am déet li ci kanam danañu ko won mais fii boobu lan la ñu war a def ñoom kilifa yi ñu nga xamante ni ñoom ñoo yor. wàllu karange gi tey kilifa yi li ñu war a def. en attendant ndax référendum dana am ak du am nañu bàyyi tànqamlu bi dama ci jël exemple tànqamlu bi mooy maa ngi jël exemple Kër Mbay Fall maa dégg chef de quartier ak imam bi ne criminalité bi fa am agression yi fa am trafic de drogue yi fa am nangami leen bind nañ ko bii ci autorité sangam bii ci autorité sangam mu tànqamlu leen tontuwu leen bii ci autorité sangam tànqam leen tontuwu leen lan la jur li yàlla doon bañ ci suratul baqara maanaam nit ñi di fajal seen bopp xale yi dañu mujje créer benn brigade d'autodéfense armée wu jàpp kenn ci samba booy rey ko rey bu ñaaw euh, ñun d'accord ñu ci loolu waaye li jur loolu mooy tànqamlu lu la muy jur mooy nit ñi di fajal seen bopp. te wala yenn koñ yoo xamante ni sax yenn waxtu kenn du fa ñemee jaar. taxul gaa yi ñu yëngatu. kon en attendant référendum di am dana am ak du am état bi na bàyyi tànqamlu bi ñun am nañ des population qui nous amènent des copies de lettres naan bii kay bind nañ ko ministre sangam bii autorité sangam. ba tey am ñu tontu te pourtant euh, pour jël exemple commune ba ma jël léegi imam ba nee na naayim bi ñemeetu la jóg 4 heures du matin tijji jàkk ci ndax ragal ko dogale seeni soxna yi nga xam ne dañuy yëngatu ci euh, ay ay marieuse lañu di dem wuti jën ci tefes gi di ko jaay géej ñemeetu ñu jóg 5 heures du matin loolu la ñu war a jëkk a saafara bàyyi tànqamlu bi fu leen population s'il le faut na ministre de l'intérieur ut benn numéro vert boo xam ne dañ koy mettre à la disposition des populations quartier boo xam ne insécurité bi lëmbale na fa. nga mën caa woote nga mën a woote te doo fay te ñu garder la anonymat nga ne wax leen ci lii moo gën a gaaw bind lettre loolu tamit bokk na ci li ñuy ñaan autorité yi. gërëm la bu baax euh, Mame Matar Gueye vice président Jamra moom lañ doon.